nos services. Huit cas issus de la transmission communautaire et répartis dans les endroits ci-après. Padoua 1, Touba 1 et Thiès 6. 19 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Au de traitement de Dalal Jamm, 12 guéris, Diamniadio, Fan, un guéri, Kolda, un guéri et Saint-Louis, un en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fan et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 882 cas ont été déclarés positifs, dont 315 guéris 9 décédés, 1 évacué et donc 557 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle, les gestes barrières. asalaamaaleykum maa ngi ñëw di di jottali lim bii nga xam ne am nañ ko tey ci mbas mi ñuy wax Covid 19 ci àllarba tey bi di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer avril 2020 jot nañ résultat examen virologique yi ci juróom-ñetti téeméer test yu réalisé juróom fukk ak juróom-ñeent dellu si nañu am doomu jàngoro ji ci yooyu juróom fukk ak benn. moom la wax contact mooy yi nga xamante ne ñu ngi leen di saytu di leen di topp ci suñu bërëbu liggéeykaay yi juróom-ñett yi ñoom moom la wax cas yi ñu jëlee ci transmission communautaire mooy yi nga xamante ne kenn xamul ki leen ko wàll te moom mooy yokk mbas mi ci dëkk bi yooyu nag ñu ngi leen gis ci diggante Patte d'Oie am nañ fa benn am nañu benn Touba am na nañu juróom benn ca Thiès ci ñi nga xamante ne ñoo tëdd hôpital ñu leen di faj fukk ak juróom-ñeent bi ñu saytoo gisatuñu doomu jàngat bi ci ñoom wër nañu ñoo ñooñu nag ñu leen di gis ci l'hôpital yi dalal jàmm am na fukk ak ñaar yoo xam ne wër nañu jam ñaajo am na ñeent Fann am na benn Kolda am na benn Saint-Louis am na benn ñi nga xam ne ñoo tëdd tey hôpital seen wér gu yaram mi ngi am tan ba dalee ba mbas mi Covid 19 duggee ci senegaal ba léegi ñu ngi tollu ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaar ci ñi nga xamante ne ñu ngi yore doomu jàngoro ji ci ñooñu ñetti téeméer ak fukk ak juróom wër nañu juróom-ñeent génn nañ ci àdduna benn delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon. ñu dese fii ci ñi ñuy faj ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ministère de la santé action sociale mu ngi dooleeti di ñaan askan wi ñu topp digle yi nga xamante ne mooy tax du ñu am feebar bii ñuy wax Covid te tamit du wasaare woo ci biir Sénégal maa ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam.